sëriñ mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke. nekk ci Touba Darou Minane. ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew. ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norme bu boulangerie di laaj. li ci gën a yéeme. cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey.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 koy woore wenn mbubb laay nekk doole ju bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen nopp ana aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp ndaje bi nag tey du ndaje leen lu cant ak ngërëm ñu ngi ci cate lu koor gi euh, koor gi daanaka yàlla def na ne fi nii cate na léegi nag ñuy sant di gërëm ñi nu jàppalewoon ku mel ne Serigne Cheikh Ndiaye Mouride moom Serigne Cheikh Matlay jàpp na ci bu baax Serigne Jibril moom tamit nekk Touba TV nekk directeur programme jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax amee nañu ko cant amee nañu ko ngërëm. sëriñ Maguette seen jàpp na ci bu baax sëriñ Pape Sàmm këram lañ doon defe lépp lu ci ëpp këram lañ ko doon defee ak sëriñ Moustapha Sylla mii fii ñu toog nii mooy kër sëriñ Moustapha Sylla moom tamit lu ci ëpp moom tamit këram defe nañ ko fa ñu ngi koy sant di ko gërëm ak sëriñ Baye Diop euh, ku lim da ngay ñu ngi sant ñooñu ñëpp daal ñi jàpp ñëpp ñu ngi koy sant Serigne Ndongo Ndiaye cameraman sonn na ci lool wax dëgg yàlla dara nga production ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér géram maanaam di ko ñaanal ak njabootam yàlla sàmm leen sàmm ñëpp jullit jaay Seydina Muhammad sëñ bàcc mi tamit ñu ngi koy sant bu baax ndax wax dëgg yàlla itteem yëpp da ko bàyyi Dakar bi ñu ko wooyee nekk suñ mag nekk suñ mag yoo xam ne si nii wax dëgg yàlla sonalunu ci lenn bi mu dikkee dafa topp suñ ginnaaw ne nu jiital naa leen lu ngeen def noonu la lu ngeen wax noonu la moom daal sant am am na nañu cant ak ngërëm ci moom sant sëriñ Pape Diop suñu maître en scène wax dëgg yàlla sonn na ñun lépp lu man guddi ak bëccëg suba ak ngoon moom moo nu ko xamal moo nu ko mënal lépp lu ñu def tamit ci moom la lépp lu ñu def rek moom la bon nag jatee jataay bi loolu la jataayu cant ak ngërëm la ak di fàttaliku nag ci weeru koor bi nga xam si ni maanaam mi ngi ci cat li nit ñuy bàyyi xel ci muurum koor ndax nag nit du woor fanweeri fan dem ba benn suuru koori ga génnoo muurum koor te nee soo génnul muurum koor sa koor du dem la tànk génnoo muurum koor yëpp dañ koy teg te moomu koor yaakaar naa dañuy xool li ëpp ci dund bi ñu koy génne bu dee ceeb la ñu dund euh, ñu génne ceeb bu dee pepp la ñu génne pepp bu dee amuñu pepp tamit ñu génne xaalis xaalis bu dee xaalis la 600 francs lay doon bopp bu nekk te kenn ku nekk borom kër gi war naa lim ña fa nekk kenn ku ne ñi ngay dundal ña fa nekk ñëpp ngeen boole ko lim ko kenn ku ne génn ko moom koor ndax suñu borom nangu koor yi lii taxoon nu wat ndaje mi suñ Pape ñu ngi sant ñu ngi gërëm sëñ Bac ñi lay sant ñi gërëm soxna si soxna Fatou Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la bi ñu ko wooyee tamit maanaam suñu loolu ci dara suñu yaay mi ngi nii moom tamit jàpp ci soxna soxna Soda Fall jàpp ci wax dëgg yàlla ci euh, sëriñ Ons ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm gars yi jàpp nañ ci bu baax sëñ Ibrahima yi wax dëgg yàlla suñu rakk la woon gën dégg ñu ngi sant ak gërëm moo tax ñu woote jotaay bi ak di fàttalante soxna Jawa Saar yi ñu ngi koy sant di ko gërëm de ndorde sëñ Moustapha moom tamit wax dëgg yàlla jàpp na ci sëñ Matar Thiam bu Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm sëñ Pape ñu jox la kàddu gi nga kii comme ni ko Samba waxee rek ndax Samba bu xasee wax sax daanaka wax ji tënku na farankulaayu na di sant bàcc mi nga xam ni sama mag la ci aar bi yàgg jiituma ci di ci sama kilifa nag ak bàcc mi nga xam ne sama nijaay la moom it di ci jàpp di conseil di def lépp waxtu wu nekk ñuy topp ci liggéey bi sooda moom it mënuma koo bañ a sant donte sàmba sant na ñëpp sax moom ak suñu ndax ñin ñi kon daal ginnaaw bu sàmba santee lañ cay dolli ca cant ga mooy suñu sponsor bi nga xam ne mooy Serigne Khadim géey Rassoul di boulangerie Cheikh Mouhamadou Bassir bi nga xam ne at mu jot ñu ànd kook ñun ci liggéey bi di nit ñu neex a waxal ñoo xam ne sax maanaam daal liggéey bi daal li ñu ko séqee rafet na rafet goo xam ne mënee su ko wax la ca biir lépp li ci war des tamit mooy ñuy wax sénégalais yi ni leen dañuy jéggulu ci anam bi ñu leen di joxe liggéey bi ndax jamono ju nekk xat-xat yi lay doon du doon loo xam ne daal lu ñuy togg la wala loo xam ne dañ koy répété sonn ci mu doog a jag déedéet dañuy bàyyi daanaka ba ñu suba la koor rek ñu tàmbali liggéey waaw li ci ëpp nag maanaam dañ koy jaamoo yàlla rek xam ne ñun ay murit saadix lañ ay taalibe li ci ëpp dañ koy jaamoo yàlla xam ne ay artistes lañ dañoo war a wane jot li nu yóbbu nit ñi ak euh, li nga xam ne mooy eggale nit ñi seen kàddu loolu tamit moo tax ci biir pièces yi tamit ngeen di gis du ngeen gis ñu génne ay ndogu lu ci bëri ñun dañoo jël benn concept di ci dox muy concept boo xam ne li soxal jullit ñi rek ñun ci la ñuy dox muy jikko yu rafet yi boo xoolee ci biir pièce yi di nga gis ñoo xam ne laalewut ak koor xaj na ndax ñoom dañoo baaxoo di teg ay ndogu yooyu waaye ñun dañuy jëf ci nit ki ay jikkoom yu rafet nit ki nan la war a mën a comporter woo ci yenn affaires yi ak nit ki bu ko dara arrivé ak njullitam nan la koy garder ñun foofu la ñuy liggéey ak nit ñi laabirante ci seen biir Euh, loolu ñun suñu liggéey ci loolu la gën a jëm moo tax sax ñu bari duñ euh, pièces yi ñu duñ gis ñuy toog di ndogu ak yooyu waaw yooyu daal mooy ci suñu yitte ci kenn ku ci nekk àq ji nit ameel moroomam ci dëkkandoo àq bi nit am ak waajuram àq bi nga xam ne ameel na ko ki nga xam ne ay way dencante lañ concept yi ñu noonu la ñuy doxee ci concept koor gi yëpp boo xoolee yooyu yëpp noonu lañ ko liggéey waaw kon nag ñoo ngi jégglu Sénégal gépp di leen xamal ni nag ñoo ngi doon rafetlu ñi nga xam ñoo doon topp euh, sketch yi di leen ñaanal ci ya ci barkeb suñu borom subhanahu wa ak koor gu tedd gi ñu yàgg noo suivre di ko fekkee ay ati at ñuy teewe mbir mi di ñaanal bu baax nag a dul mun Muntaxa suñu borom yàggal ko fi te ànd ak wér la ñuy suñu kàddu nag mooy discours bi mu wax rek ñu delluwaat ci yàlla jaamu yàlla ak liggéey na ko suñu jàmbaar ja waxe woon Cheikh Sidil Mokhtar di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala dolli ay leeram julli tamit ak jaamu yàlla ci lañu ci la ñu tegoon loolu du tax ñu bokk kon jëfam du fi jóg mukk te ci si ba keroog ñu koy fekki foofu lañ fas yéene teg suñu tànk di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér ci barke Cheikh Amadou Bamba di ñaanal nag sama jàmbaar ja maam Thierno Mbacke moom sëriñ Cheikh Awa Balla di ñaanal Cheikh mooy dina sama sëriñ di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ziar ñëpp di di kontaan bu baax daal. di leen xamal tamit ni cant gi ngeen di sant yëpp yéen a ko yeyoo ndax mën naa wax ni lépp yéen la euh, Pape mi day sama rakk ma yar ko nag ñu muy xale ba léegi ñu wëlbati ànd di liggéey ci kaw liggéey bi mu jox ma cër boo xam ne ak respect boo xam ni jaaxal nañu bari sax ca fañ dëkk amul lenn lu muy def te duma laaj xalaat walla lenn lu muy def te duma ci woo kon loolu bu cant day am man maa ko ciy sant di ko ci gërëm moog sëñ Samba mii Samba mii tamit lu muy def téléphone dina ko jël woo ma ni ma kar ni ma ci loo nekk nangam ak nangam kon yéen sant gi yéen a ko yaayoo artistes yi nañ fi torop ñu ma dàq théâtre doo nga fi nekk gën maa mën mais xoolu leen ñooñu lépp lu ngeen di def da ngeen di jël da ngeen ma jël jiital ma teg ma ci seen kanam kon man yéen maa man maa leen di sant di leen ñaanal yàlla fi ngeen bëgg àgg yàlla na leen yàlla àggale yàlla nañ fa yàlla àggal ñu ñëpp sax laay wax parce que aar lañ bëgg aar lañ gëm te ñun ñoo bokk bëgg-bëgg ba pare ñoo bokk Serigne Touba ñoo bokk lépp kon ñun famille lañu quoi ñun nekkatuñu ay jàmbur nekkatuñu ay jàmbur ku ci soxla sa morom rek sa morom lu mu jàpp da ko war a bàyyi ñëw teewe loolu parce que dañ koo jiwante dañ koo seq di suñu jigéen ñi bu baax Fatou ak soxna Soola ñoom tamit ñu baax lañ dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi liggéey nañ ko ci discipline ak respect kenn wanewu fi benn baadoo la parce que des fois da ngay dem ay tournage yoo xam ne sax da ngay gis action yoo xam ne daf lay yéem mais fii ñu fi ñëpp ay taalibe Sëñ Tuubaa la waaw moo tax baadoo la mënu fee am lu ñaaw mënu fee am rafet rek am ba tournage bi jeex kon dañuy dellu di sant yàlla rek di ñaan li ñu def bu déwénee yàlla defal ñu def lu ko gën a lu ko gën a pire daal man loolu laay ñaan yàlla quoi di sant sëñ bàcc mi moom moo bëggal boppam moom tamit. Mm-hmm. dëgg yàlla moo bëggal boppam teg ma fu kawe nag waaw ak soxnaam. Mm-hmm. bu mu ñëwee Touba këram laay dal lu ci ëpp këram laay nekk dama koy sant bu baax parce que bu ko neexoon du ko def. Mm-hmm. waaw sëñ Donga caméraman moom dañ koy sant ndax taalibe la. du gàntu du découragé du taayal. waaw te li muy def gëm na du ndongo du taayal du découragé du xàddi. chaque jour rek mu xool luy rafetal liggéey bi ak lu koy jëmale kanam mu nekk ci te liggéey noonu la rek ay nit moom suñu àndee lu liggéey bu seen xol yi nekkee benn rek lépp lu ñu song rek dañ koy naan te fii loolu moo fi nekk kon sant la sekk mi tamit dama koy gërëm sama rakk moom ba ma gisee ba léegi daf maa bëggal boppam wax dëgg yàlla maa bëggal boppam dañuy bëreeg di def lépp mais hmm. du ma dépensé du ma wax lu ma waroon wax te àdduna amul xale amul mag ñëpp benn lañ mais respect moo am solo ak cër ak nekk taalibe man loolu laa gëm quoi man loolu laa gëm suma àdduna gëm ma leneen lu nit mën a am ak noo mën a man boo amul taalibe amoo respect man maa ngi yow nii lañuy def waaw man loolu laa kon nañ sant yàlla bu baax dolli ci dañ ko santoon ñu def lu gën a kii lii sama soxna nag dama koy sant bu baax parce que fan yëpp daf may woo kañ ngay ñëw ngay ñëw. Hmm. maa ko ngi ñëw xam naa ne nam na ma trop maa ko gën a nam waaw. alhamdulilah kontaan bu baax. yal na yàlla daf jàmm. comme ni ñu koy faral di defee tamit pro sponsor yi daf ci am solo daal te ñoom ñoo ñu mën a jàppale quoi ci produit yi produit yi di jàll parce que ñun ñëpp lay arrangé waaw kon sponsor yi ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di woo di leen ñëw di jàpp ci produit yi ñu liggéey ak yéen waa Proxand soow ak sëñ Xaadim moom wax dëgg yàlla moom moom moom mi ngi ci jàpp bu baax moom. waaw moom mi ngi ci jàpp bu baax sëñ Xaadim moom mënuñu ko fay quoi. ñu ngi jàppale bu baax waaw boulangerie moom mun ñu mun ñu koo fay mu ñuy jàppale bu baax waaw kon daal sponsor yi affaire baa ngi noonu jàpp leen ci mm. waa Seigneurie waa Seigneurie tamit ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di woo beneen produit ngeen jàpp ci bu baax xam sa ah du am sa waaw xam sa waaw am sa ba ñu ngi leen di woo bu baax boo ëllëgee ngeen jàpp ci yéen ñu mën a jàppale ñu tamit ñun ñoo leen mën jàppale affaire yi jëm ca kanam mënu ñoo dem bàyyi leen yéen tamit mënu leen dem bàyyi ñu kon nañ jàpp leen te liggéey waaw